mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim wolofal wi sëriñ Abo Madiana soxna bu Guèye moo ko def fa daaraam ja nekk janatul mahwa ama saktasin Nigeria mooy at mi sëriñ Saliou Mbacke waxee ne dajale na fukki milliards jëme ko ci defaraat dëkk bii di Touba te wax ne taalibe yëpp la ci woo fas ko yéenee ànd ak ñëpp yàlla na Serigne Touba nangul ko te nangul ku ko dégg wala mu jàng ko wala mu gis ko amin baj géwél jëlal galanub cant jiin ma bàkkati mbër mbër ma man ña man ña fi raw ci diina raw nu ci ngor baj géwél jëlal galanub cant ma bàkkati mbër mbër ma man ña man ña fi man raw ci diina raw nu ci ngor bajjëwal jëlal galanoog cant jiin ma bàkkati mbër mbër ma man ña man ña fi man raw ci diina raw nu ci ngor taawu ndam yi sangi ñoñam maandu jub rawet ta du mer mus la def lu yàlla di sib mus la bàyyi la ko war taawu ndam yi sangi ñooñam maandu jub te du mer mus la def lu yàlla di sib mus la bàyyi la ko war sàmm nag juram ba ñu jof regg mandinaat sori tër benn mankiwul koloraawul te góorul it bañ xeex na ron noon ya ñu dee mang yiw jox na nu yor gàdduraaya way fegi ay samp xayma yuy dëll kër xeex na ren di noon ya dee mang yiwa jox nu nu yor gàddu raaya way fegu ay samp xayma dëll kër dolli xel yi boole nu boot boole xol yi wax nu lu wér te ñépp ci rafetal ren di nag wi jox ku ne nar ruuj na bay na ñorle pajuk aajo dikk leen sori bor togg nag ayam dëna lay ku weddi lii masi yar mooy kitaawu léppi njariñ may ña gumeen lu ñu for waaju dem fa moom dana am lum xelam dajul ci lu ñor waaju ñàkk jublu ko am waaju wopp dikk fa wér waaju réer ba dem fa di gindee ku rafle dem ami sër waaju rëbbi jàpp ko jaw fal la jàpp ci nar kuy yaxantu làq ko am nay ngalam yu sell yu jar kuñ xamul ba ñëw fa di xiblay moroom ya des ngiri war kuñ sikkal mbiram ba mu ñëw fay dugub ju sell ju ñor kii du kenn kenn du moom ay sayaanam duñu fer jëf neen amul ci mbiram tool yi diine yépp la gor kii du kenn kenn du moom ay sayaanamit duñu fer jëf neen amul ci mbiram tool yi diine yépp la gor dekkalaat na taali ba yëppi bérëx amul bu saxar xapp jëmb beeg ëkk yi de jiwaale yi far daldi taw ci xol yi ba tooy bay ngërëm ba góob ami ngar moom cërem ëndul saxaraanul te ñeex ma neex na ta mooy ki tax ba ñenn di dem daara ñenn ñii di sikar ñenn bàyyi karta ka ak misik ñeneen bañi bar ñenn génn ci doya deeku wëreelu ñii bañi bar ñenn jël xasiida yi def ko liggéey ba seey ca bu wér am na ñu doon takkaay yu ñu xam am ñu doon imaam yu ñu yu sawar am ci ñuy fajuk wéradi xam lu war ci xol bu dëgër am ci ay takkaay yu ñu xam am ci ay imaam yu sawar am ci ñuy fajuk wéradi xam lu war ci xol bu dëgër am ñu doon takkaay yu ñu xam am ci ay imaam yu sawar am ci ñuy fajug wéradi xam lu war ci xol bu dëgër waa këram amul fa mu am ngir ku nekk xam la ko war seen sariya day setalug mooy ak i xëyay lor kum ñawal mbubam ma du xar kum jubal mu xam ko ko moom moonu may lu xel xalamul yéen nit ñi doon safi xar kum jubal mu xam ko ko moom comme ñawal mbubbam ma du xar moonu may lu xel xalamul yenn nit ñi doon safi xar ñay doxit mu may ku la yóbbal bu tey ni soow munu njar war du naas la waaju ko naam xol ba set mu jekk nga war moo di ndox mu laab ku ko sangoo du faali nit ku jëfur mooy imaamu waaju ko diingat deret janeen ci gobar moo di weenu xeet wi ku nampul du jóg daaxi sagar nattangoom amul ku ko gis xam-xamam amul ku ko yor leen te ma way mbër ma tiim ku dul ka ko aw defi namak la mu daa wax ma wax ca tuuti lu bir dikk leen te ma way mbër ma tiim ku dul ka ko aw defi namak la mu daa wax ma wax ca tuuti lu bir maa di sant buy niru gar teg ca mokk bay safu dër taggkat yi nañ ne xeram kak tar yebul fasu par doomi sëñ géey bëgga jóg ngir wayaat sangam bañu wër way walaf di way ci arab moo ko def ci sooy mi mu yar taarixal ma fum masa jaar ngir murit yi dégg lu wér fukki fan di ajjuma teg ñeenti fan la takku fajar diggi wey Tabaski fa Njurbel ci jalsa si la du far mew nu ak libaasa ko wër muy sa tub ndumbe far ay am sa tooy na ja ko jàngal ci yatti at dafa bar dem tindoo di at la fa am dem kajoor di xam di nafar am sa tooy na ja ko jàngal ci ñatti at dafa bar dem tindoo di at la fa am dem kajoor di xam di nafar gëstu xam ba xam lu rawum xel di door a samp lu kër fa njëkk ci am ci ban sësin la ko kër daana jaale daa demi armeel ba xëy ne fas wile kor daana takk tukki ci réew mépp géet ndar weti mbar Mustafaay magam jëkko dëj mbuur ba noppi may ko fa kër nekk ma daaro jax sa si xul gànn dajta sin la fa ngar ballaloo bayoon na fa at làmmiñam du way du wesar musula génne kenn ka xas moom du dàq jaar di ko xër ballaloo bayoon na fa at làmmiñam du way du wesar musula génne kenn ka xas moom du dàq jaar di ko xër moom du leb du leble du garmbaa su nit du daw ko ber buy jariñ du xej aka seen xeeti nit ñi ñépp la yar lépp luy makaarimul laxlaaxi mi ngi ci saal sunu mbër képp kuy xiyaas ku ne góomi xol la am ci xëtër lépp luy makaarimu laxlaaxi mi ngi ci saal sunu mbër képp kuy xiyaas ku ne góomi xol la am ci xëtër an sasin la sañ ci fagot jan sasin lumbel la ca gor ya salaat korondal itam kër ga njàppu ndal la ci tur dal sa la loola xewoon mbalkamaa ngi waaju fi mar dan sa la woote fa xabaan di bay di jàng di yar Seex ma Jóob amoon na fa ab gent sànna it dafa xar cilma fa njëkk ci daaraam itam tam sa sin la bu gor na ñaaro ama sa tas gor la gan atas mu di kër bayte sin la moom ndooka fa sa sin la ca gor njibingal tatas la fa dem dem ge loor caak te la woote ca xel koom ñu gor ko gor mu dëgër njibingal tatas la fa dem dem ge loor caak te la woote ca xel koom ñu gor ko gor mu dëgër am na tiitarub fonseem mat fukk juróom li mu kër jannatoom ci ay tasa i jak tasin langa bu di kër ak tasin tubaa njaareem la ko bëtam bu du jir yii ma tudd yëpp di ay daara làq góor ñu sawar gor bëtam jir yii ma tudd yëpp di ay daara làq góor ñu sawar jann daara joo ma sa dem saaru laan la am ci nga mooy dundal di woddu di faj waaju weddi daa siti ër jenn daara joo masa dem saaru laan la am ci ngawar mooy dundal di woddu di faj waaju weddi daa siti ër mooy labat di ngénte di xamle ka suub murit ba mu xor moonu boot billaahi di nampal di xol ngërëm ba fer ubbi wunti yërmande tëj coono cuub ñi ràmm ba bar indi toppe may ku ne mbir am ñu seex ba far di defar sant rek a war ku ne tey àlla donnu ësk war saali wooy sëriñ tuuba lii ma wax du kaaf ta du nar sant rek a war ku ne tey àlla donnu ësk war saali wooy sëriñ tuuba lii ma wax du kaaf nar daa ta koog yamu yor boole koog di yeete fajar ràññi ñëpp teete ku ne ci manam deful lu jàngar xar na baax ci xam li mu sañ tànn nag torox lu ci cër moom du nit du jinne du ak njuuma yërmande turu mbër képp nit ko takk ci moom yaatu yërmande la war fukki junni yuñ tafa luslëf la làq takk der yiw ci jéeri yiw la ci géej ndambe ndami yaatu ni sër yee salaat na daara yi ak jàkka yeeg jumaa yi bu wér moom du laal du xool du joxoñ lenn lenn luy niru ger daana dem ca tool ya di wër mbay ma ak ëreen jañu for ay fereem ma sàmbal la ñuy roy ci daaj taxaw te mu wér soo bu te sopp ko faaf sey ci moom bëggën magu pir daara yaay fara idu ay nin ma wax kifaaya ya jokk bokk gépp di dundal ba dem na mbàkke xawar moo waral ba jàngale faf nekk mecc am ñu ko dar waaju dencegul yori daara yi kuréel di moytu xarar moo waral ba gàmmu gi sax ay garab yu naat ami car kër sëriñ bu mag bi di ab lim mu baaji dëkk bi far natt xibla yëpp te yokkaat na marché yii ni xasar hôpital yi yii mun a lee tax ku wopp léegi mu wér lamp yeeg ndoxam mi di keppaar ku gumba yit yégi ker naal na ay tëléeg yu dul wax caay tabax ak i mbir mat na sëkk aw yiwamit lépp a siiw baraw doju ngor gaa naal juma budul koon moom mu am ci ñun fayu bor mat na sa kaaw yi wamit lépp siiw baraw doju ngor gaa yi naal jumaa budul koon moom mu am ci ñun fayu bor chef de parti yëpp la jàmmool amul ci ñoom fu mu far njiiti dine yëpp la may doole boole kër ya di yor day joxe tëbaski di jox gàmmu suq say nuru mbër jot na réew mi jot biti réew lañ fi tayle woon ñibbi kër joxe tëbaski di jox gàmmu suq say nuru mbër jot na fi tayle woon ñibbi kër néew ji doole yëpp la jox njël di jox ñeneen xari yar waral baccant gi daj kap ñenn am ci jabar ñenn am jëkkër ña ca des am ci kër ñeneen amu tur ñenn am ci pénc ñeneen am ci naaf yu rëy ñu tar xeeti canti canta nga ngën ji cant jëf lalawar la war xeñtu sëb sëriñ di koro yi sant mbégte sant naqar xam sa bopp xam kala jox ak nawet ak i noor am di reet ñàkk di jooy mooy perantalub aji fer mbër du yàq mukk aka bew kuy bajantu manki na mbër sant kaddu geesu jëfam geesukat bu léem gala cor mucc faw ak jariñu yal na sax ci réew mi basar ñépp xam di jëf lu ñu xam teg ca yar bu mat bañ a wor ay waxam du tondu du jan day dëppoog lu xel mën yor lum narul du wax lu ca jëm mus la waaf ndegay ne gu ŋar booy waxit ba juum mu ne settantalaat ko naas lu ko ngir moom du jonguroo ka jalu mus la xaaru kenn ka cor mooma làq ramm sol ma xama xameek sori nar moo ma jox fetal ak i bal may ma xol bu sedd bu leer yiir ma yor ma fal ma ba may xeeñtu tànki gaayi ba dar moo ma boot tungóom ma ca kaw may ma yiwu teeru safar moonu sóob dugal nu ci gaal taal ma sin ba jox ma ma yor jaaji fay la war ku ne tey soow mu neex murit du ko njar lim nu dénk ma na di xam xam ko wax ko war na ku wér nee murit dëppay la ca yées bul di naagu bul tegu der nee na it murit ndigalam mooy sangeem sutal sa ko wër koo fi gis bawul ndigalam lum gëlëm gëlëm sori lor gis ku benn di gëlëm lum sikar sikar dëkke mer kuy wéyam xelam ba ndigal lum dëtëm dëtëm dëkke mar nee murit bu soobu te wéy geesuwul du mar te du mer nee na kuy linkaar kilifaam mbaa mu foñ saxaar galakar nee fii mu aw fala aw la ku bëgg a mos li mu yor nee nit du def lu mu xam wax ko nit ñi tuur du defar daana bañ moderne ku laaj Moustapha moomam dana bir daana wax ni kuy faj itam bum di faj ba faj lu mu mer benn bum ca faj lu mu néew néew jural ko fukk yu tar nee kuy forit lu mu forfor na mooy tunit bu ko for nit ku baax du wëtt këruur bay mi ndéef ni moom di ko for aw defi namit ku ko roy raw ma wax ca tuuti lu bir nit ku baax du wëtt karuur bay mindéef ne moom di ko for aw defi namit ku ko roy raw ma wax ca tuuti lu bir toppe moo di ngir ma mu aw kuy deniir lu mat na ni bar musula gëdd ñëy jëlu mbaa mu fakk tal ñàkku musula weer ka jalgati mbaa muy marook am miliyaar wóor ya ak ñaloon ta yemoo du xippi xool la ci per ay mbiram ci lu mën a doon xam na lépp saytu ko yor musu jox mbindéef baatam ci joyal du bind di far moom du yónni nit di ko tàmpeel këyit du kaase du far day defar nitam ba mu xam xam mi mat ndawam du nar moom du yónni nit di ko tàmpeel këyit du kaase du far day defar nitam ba mu xam-xammi mat ndawam tadu nar day samar di xelli di naan taaj fereem ya kaasi xular aw ñamam du tàng du wow yaari naan yi tàng ca wér muy ti baate di ñu ne ndab toog di xool kafeem du ko jar moom du juum du jaawale riccu yaraa nga yit du ko gaar junju xamal ñamu yor ndax du waare naa ngararar moona moom ci jàng ko jekkee ka bay la daa yëre mbër ay mbërëm dañuy gëmmu gëm duñ lewoo ci làmb ju gor mag ña ñépp a jub di jubal ndaw ña ñépp a gën magu ndar nooru jël bi gaay fetalam mus la téq mooy la mu diir jam na mulki jam malakoot lum ñu lug duggéey te du dar nooru jal fetalam musle teq mooy la mu diir jam na mulki jàmmale koot lum ñu lug duggee te du dar boo janoog jamaal jamul lamboo sa dënn bay bëgg xar waaju jàq dikk fa buy mooñ nga bég ba jox ko sa mbir làqukaay la waaju ko mos gàcce dootu tàbbi sa kër sang baa ngi sang na ñëpp ak fas wi du kaar làqukaay la waaju ko gàcce tuutu tàbbi sa kër sang baa ngi sang na ñëpp ak teraanga fas wi du taar làqukaay la waaju koomos gàcce dootu tàbbi sa kër sang baa ngi sang na ñëpp teraanga fas wi du taar rappalal nanu texe ak xam boroom bi faj nu nu wér moo di sundusin ku ko sangoo du liw doge saxi wer diine yes na pekk ci moom yoon wi ñépp sax ci wér jiw wi mu wutal yile baykat raxuñ ko buuse bu xaar gaw na diine jépp ku yiw foo taxaw mu tiim la ni mbaar ku ko tëkkalee ku ñu gis xam ne soos du ndambe du ñar ndóor bu dee yafal ñi fi loof sàkkaañoy jëloo wata boor ab simis bu dee sutural awra daa gisul saba ndóor bu dee yafal ñi fi loof sakkaañey jëloo wata boor ab sibis bu dee suuturaal awra daa gisul sama door kuy xuloo ci bënn go saw bu gisee furaat dana luur buy werante ci foto ngir moo di jëmmi njël lañu gar jant baa ngi kenn du ko semmal ci weerakub limiyeer ñakku leen te sopp ko ngir sopp koy dañal waru gar baaj bi fees na cem su ci naan mandi géej ga des fa du fer xat mu naa ku dégg na ñaan yàlla aar nu aar sunu mbir may nu mujj gu yiw gu rafet gudd fan njaboot gu dëgër maa ngi tuub di sant di rëccug mooy ak lu fiy indi lor yërmandeeg ndimbal lu ne gàññ ak texeeg fileeg fale far yàlla na daj murit bu ko jàng ak ku dégg békke bu wér yërmandeeg ndimbal lu nay kañ nag texeeg fileeg fële far yàlla na daj murit bu ko jàngak ku dégg békke bu wér amin ya rabbal alamin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoona wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil alamin mu toll ci 97 bayit alaa ji sekk nett li ko dongam sëriñ daam abdourahman mbàkke m lilahi ma wax lilahi rasulilahi xayril anam